قد bi mën na deñ alhamdulillahi rabbil alamin mhm. allazi rahmatan wa hidayatan lil alamin mhm. sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa xulafaa'ihi wa man ihtadaa bi hadyihi ilaa yawmi ddiin wa radiya allahu an taaji alcaarifiina wa mumiddi kulli awliya arrahmaani saaxibi alanwaari walfuyuudaati cheikh alshuyuux alladi نال الولاية وآدم بين الماء والطين ذاك أحمد بن محمد التيجان السالمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki muy jolof ak seeni gan góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ñu ngi jiital ci nuyoo bi surafa yi baas bi di waa kër rasulillahi alayhi wa sallam nuyu aimma yi ñu fi fekk yépp jaare ko ci imaamu ratib bi nuyu boroom xam-xam yépp jaare ko ci suñu mbokk Mouhamadul Habib nuyu chef de vilage bi waaye nuyu mboolem notable yi ñu fi fekk ci jàmm ma ni guddi la jigéen ñi muy yàlla ne falawlaa ida balagati lxulquuma wa antum xiina idin tanzuruun wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun falawlaa in kuntum xayra madinin tarjicuunaha in kuntum saadiqin fa amma in kaana min almuqarrabin fa rawxu wa rayxaanu wa jannatu naim wa amma in kaana min asxaabi alyamin fa salaamun laka min asxaabi alyamin wa amma in kaana min almukadibin addallin fa nuzulun min xamim wa tasliyatu jahim inna hada lahuwa xaqu alyaqin fa sabbix bismi rabbika alazim sadaqa allahu alazim yàlla ni yàlla ni bàyyi leen xel bis bi ngeen di dellu si dañoo ñëw muy de waaye ku yàlla dogal nga ñëw muy gis ni muy yaatoo gis ni muy yaatoo nga xëy suba rek dem jëndi say toni ciment teg woo birikkat bi ni ko kaay birigal ma ñu ni déet na waaye nga tàmbalee tabax même buñ la waxul dara bàyyil xel ni da koo muy da ngay ñibbi moo tax maam Seydi Hadji Malick ni fa yaa ayyuhal baani mahalla diyaafatin alam taalaman anna al jalaa qaribu maam Alaaji Malick ni man de yéem na ma yéem na ma ñu ni ko Maodo lu la yéem mu ni damay woo ki nga xam ni dafa gane si gane la def ñu ni déet na waay bi mu gane ngan gi neex mu tàmbalee mool tàmbalee tabax alaaj Malick ne xanaa xamoo ne lii ngay tabax da nga ko fiy bàyyi dem kon adduna bii ñu ñëw dañu fee ñëw ay gan lañu yàgg-yàgg bis dina jot ñu takk suñuy bagage dem yàlla ne bu ngi waaj a dem nag wa tazawadoo fa inna xayra zaadi taqwa man daal xam naa ni dañuy dem yàlla nee na préparé leen yóbbal bu ngeen yóbbaale ñu ne yaa rabbi lu ñuy yóbbaale mbuuraake wala mburu wala lu ñuy yóbbaale yàlla ni déedéet yóbba yóbbal yóbbal bi ëpp doole mooy nga yóbbaale ragal yàlla gars yi nañ leen bàyyi xel àdduna bu kër fii ñu toog nii gis naa fi ay jigéen ñoo xam ni samay yaay lañu bu yàggul dara boo daan ñëw jolof dajeek ñoom ku leen mas a xool xoolaat leen bu ñu nee bërët ba jóg ba dox boo leen xoolee rek xam ni kaar baal leen ma ci wax ji waaye damay jàngale dina dinañ ma ko baal bu ñu doxee rek nga xam ni jonga ma piir a ngi dox tollu ci digg ndëndëm buy dox dox bi dëgër ku mu romb nga xoolaat ko xam ni jonga ma romb na la waaye bi leen àdduna jàppee ñu yàgg a fekke démb ak tey yàgg fekke daaw ak déwén yàgg fekke daaw ak ren tey ñoom dañ leen ñoom ñooy xoolaate waaye kenn xoolu leen xam ngeen lu ma bëgg a wax mooy fi taxawoon fii wàcc xam ngeen lu ma bëgg a wax mooy bëñ yi tàmbali naa wadd xam ngeen lu ma bëgg a wax mooy bu bëñ yi waddee rek lex yi nóox xam ngeen lu ma bëgg a wax mooy da daan bërët léegi balaa yokk ko ki bay jóg kenn xamul kañ la moo tax léegi day romb di xool ku ko xool waaye kenn du ko xool addunaay def noonu moo tax nabi ni sallallahu alayhi góor góor lu leen ci àdduna ba ixtanim xamsan qabla xamsin nabi nii lu leen ci juróom bala ko fee juróom a fekk yaa rasulallahi moo yooyu juróom yan la mu ni bi jiitu mooy sababaka qabla haramika waay waay waay waay bi ngeen doonee ndaw góorgóorlu leen balaa màgget a ñëw màgget day ñëw de xanaa xamoo ni màgget doo ko sentir doo ko yëg da ngay rek mu ni bërët sa kaw danga naan ah ñun xale yi fi mu ne man saa yi ma waxee ni ñun xale yi te kat yàlla dogal na am naa doom ju sëy de waaye bu ñu waxee rek ma ne ñun xale yi ñun xale yi ñun xale yi dangay dem tuuti rek doom jooja am doom nga am sët sët ba naan la maam nga naan ñun xale yi ñun xale yi waaye da ngay xëy bis rek sey bët dootul leer njaay dangay ngay xëy rek say bët dootul leer nga naan ñun xale yi dem seeti docteur mu bindal lay miyop nga naan ñun xale yi ñun xale yi nga xëy bis rek jóg rek am lu bañ nga naan ndiggali fekk déedéet du ndiggali de mage moo ñëw sababaka qabla harami هيات هيات يرتئب الزجاج إذا انفأ ويعود شيخ في شباب الفراد ku topp sag ndaw ba màgget dugg la mënatoo dellu ndaw déggu leen ma de mani mani verre bu toj defaraat rek waaye ndaw lu xës mage dugg la mënatoo dellu doon ndaw dee rek dee rek mani ku dee mag dee ku deewul mag dee waa ji dafa dugg ci jàkka ji yore jaas yi ni maa ngi ci jàkka ji de gaa yaa ngi wan penku ñu ko wan gannaaw mu ni maa ngi seen gannaaw yore jaas yi de ki mag ci jàkka ji lay rey gaa yi di rocceeku julli gi àggagul de xam naa bu doon stade la xale yi di way bu ñu dugalee ba match bi waaj a jeex ñañu ma ne di génn da dégg xale yi naan ñu ngi rocceeku <laughs> gaa yi tàmbali rocceeku mu naan ee eh, ee eh, eh, ki mag ki mag ci jàkka ji bu mu génn de dama koy rey gaa yi di rocceeku ba yàgg mu des imaam rek ca jàkka ja julli gi jeexagul gaa yaa ngi génn imaam a des ci jàkka ji ak doomam ji ci gannaawam imaam ni assalaamu aleykum sëlmal na julli gi bi mu sëlmalee julli gi tourné yam ci doom ji xool doom ji doom ji xool ko borom jaasi ji ni yéen ñaara ci des imaam ni ko waaw mu ni ko yéen ñaar ku mag doom ji ni ko mooy sam waaye imaam bi xool xamul lu muy wax mu ni ko wax na dëgg de may papaam mais nag nii laa ko xame de daf moom daal man nii daal laa ko xamee xaw ma sax nag kañ la judd wax dëgg yàlla lan laa bëgg a jàngale shababaka qabla haramika mooy mooy mooy bi ngay ndaw góorgóorlu ci balaa magee ñëw ndax bu magee ñëwee lu la rëcc ci sa ndaw dootoo ko dab doon ndaw rek topp sa ndaataandal lax bisa ngi ñëw dafa am benn xale lu góor day daw ba mu yàgg ànd ak baayam bi muy daw ba mu yàgg di daw ba mu yàgg romb waxambaane bi waxambaane romb leen di daw di daw ñàkk tooy xepp xale bi ni ko bàyyi kii kan la mu ni ko kii mooy waxambaane mu ni ko bàyyi xanaa lu yàlla bind kii yee cépp doole mu ni ko bu dajee xale bu jigéen bu mu nopp rek dooleem jeex xale bu góor bay daw ba romb xale bu jigéen bu mu nopp taxaw di wax lu ñor ak rabbil alamin écho bi mën na deñ alhamdulillahi rabbil alamin mhm. allazi xalaqa fa sawwa wa qaddara fa hada wa axraja almar'a وخلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وحكم على عباده بشرب كأس المنون وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ورضي الله عن تاج العارفين وممد كل أولياء الرحمن صاحب الأنوار والفيوضات شيخ الشيوخ الذي نال الولاية وآدم بين الماء والطين ذاك أحمد بن محمد التيجان السالمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki muy jolof ak seeni gan góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ñu ngi jiital ci nuyoo bi sorafa yi ronu baas bi di waa kër rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nuyu a imma yi ñu fi fekk yépp jaare ko ci imaamu raatib bi nuyu boroom xam-xam yépp jaare ko ci suñu mbokk Mouhamadul Habib nuyu chef de village bi waaye nuyu mboolem taabal yi ñu fi fekk yépp naa ñëw ci yow koo woowul bëgg naa ñëw ci yow loolu nag lekk-lekk boo ko waxee nit ñi jàpp ni sax njëriñ la waaye gannaaw njëriñ yëg ak faloo ko ëpp doole te yëg ak faale moom nga am ci taalibe yi bàyyam aaji daaw góor mi leen boole boo ko woowee bëgg naa ñëw ci yow boo ko woowul bëgg naa ñëw ci yow waaye nag boo yiliful sa bopp lekk-lekk nga defar say bagage ba jóg des kilifa gi la jógal barab sàngam doo ñimee wax fële laa jëmoon yàlla dogal mu yebal ñii xaaji Maodo mii di rakkam ànd ak xaaji Masaw mii nga xam ni seen mag la ñoom ñépp ñu déparé Dagana di ñëw réer man bi may àgg daara jolof boobu man man Dakar laa jóge bi may àgg daara jolof laa leen jot ñu ni ma dañoo réer man leen fu ngeen ne ñu ni xamuñu ko ñun kay ñu ngi ci àll bi rek ma ni leen laajte leen daara ngeen delluwaat ba daara laajte yoonu muy fa tabaarakallaahu yàlla def sutura ba ñu agsi boo gisee bi ñu agsee yàlla dogal ñuy indi reer bi ma ni jarul ñuy reer nañu dem tàmbali mooy ñoom dañuy ñun ñun ñuy ñoom ñoo ñu war a jiitu kon bu ñu tardee ñun ñoo war a ñëw doxal ba ñu fekk ñu ci moo tax bi ma ñëwee Habib ni ma dañ la alamaan ma ni ko bu ma delloo nga xam koy alamaan man sama heure génnagul dama anticiper sama heure ngir lan ñi war a tagg yonent bi salaay salaam ndogal dafa ñëw ci ñoom waaye badara yal na yàlla fay la yàlla sàmm la yal na yàlla aar la macha allah damay wax ni doom ju mel ni badara région bu ne bëgg nga ko am commune bu ne bëgg nga ko am département bu ne bëgg nga ko am mooy lan mooy lan fonk sa cosaan xoolal tànt bii rek tant bi rëyul ci yonent bi sallallahu alayhi waaye mani man ngaa tant te doo àgg fii kon lan moo ko waral gannaaw bëgg yonent bi waaye fonk sa dëkk fonk sa cosaan moo ko waral kon yal na yàlla sàmm leen muy yal na fi yàlla def teraanga yal na fi yàlla yokk sutura yal na fi yàlla yokk wér ci barke rasulillahi guddi gi nag guddi kenn la ñu ngi nuyu soxna yépp nag délégation bi jógee Dakar ñoom ñépp saa bu badara wootee fii ci muy ak li muy sori sori ñu def biis ànd ak i soxnaam ñëw sañse toog ba gàmmu gi tas ngir yàlla yal na yàlla sàmm leen yal na ngeen dellu ci jàmm yal na ngeen dellu ci jàmm àgg ci jàmm waa HLM waa zone B waa waagu ñaay yéen yépp góor ak jigéen mag ak ndaw yal na ngeen dem ci jàmm ma guddi gi guddi jàmm la jigéen ñi muy yàlla ne falawlaa ida balagati alxulquuma wa antum xiinaidin tanzuruun wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun falawlaa in kuntum gayra madinin tarjicuunaha in kuntum saadiqin fa amma in kaana min almuqarrabin fa rawxu wa rayxaanu wa jannatu naim wa amma in kaana min asxaabi alyamin fa salaamun laka min asxaabi alyamin wa amma in kaana min almukadibin addallin fa nuzulun min xamim wa tasliyatu jahim inna hada lahuwa xaqu alyaqin fa sabbix bismi rabbika alazim sadaqa allahu alazim yàlla ni yàlla ni bàyyi leen xel bis bi ngeen di dellusi dañoo ñëw muy de waaye ku yàlla dogal nga ñëw muy gis ni muy yaatoo gis ni muy yaatoo nga xëy suba rek dem jënd say toni ciment teg woo birikkat bi ni ko kaay birigal ma ñu ni déet na waaye nga tàmbalee tabax même buñ la waxul dara bàyyil xel ni da muy da ñibbi moo tax maam Seydi Hadji Malick فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلمن an nal jalaa xaribu maam alaaji malik ne man de yéem na ma yéem na ma ñu ni ko Maodo lu la yéem mu ni damay woo ki nga xam ni dafa gane si gane si la def ñu ni déet na waay bi mu gane ngan gi neex mu tàmbalee mool tàmbalee tabax alaaji malik ne xanaa xamoo ne lii ngay tabax da ko fiy bàyyi dem kon adduna bii yu ñëw dañu fee ñëw ay gan lañu yàgg-yàgg bis dina jot ñu takk suñuy bagage dem yàlla ne bu yéen a ngi waaj a dem nag wa tazawadoo fa inna xayra zaadi taqwa man daal xam naa ni dañuy dem yàlla nee na préparé leen yóbbal bu ngeen yóbbaale ñu ne yaa rabbi lu ñuy yóbbale mbuuraake wala mburu wala lu ñuy yóbbaale yàlla ni déedéet yóbba yóbbal yóbbal bi ëpp doole mooy nga yóbbale ragal yàlla gars yi nañ leen bàyyi xel àdduna du kër fii ñu toog nii gis naa fi ay jigéen ñoo xam ne samay yaay lañu bu yàggul dara boo daan ñëw jolof dajeek ñoom ku leen mas xool xoolaat leen bu ñu nee bërët ba jóg ba dox boo leen xoolee rek xam ni kaar baal leen ma ci wax ji waaye damay jàngale dina dinañ ma ko baal bu ñu doxee rek nga xam ni jonga ma piir a ngi dox tollu ci digg ndëndëm buy dox dox bi dëgër ku mu romb nga xoolaat ko xam ni jongama romb na la waaye bi leen àdduna jàppee ñu yàgg a fekke démb ak tey yàgg a fekke daaw ak déwén yàgg a fekke daaw ak ren tey ñoom dañ leen ñoom ñooy xoolaate waaye kenn xoolu leen xam ngeen lu fi taxawoon fii wàcc xam ngeen lu ma bëgg a wax mooy bëñ yi tàmbali naa wadd xam ngeen lu ma bëgg wax mooy bu bëñ yi waddee rek lex yi nuux xam ngeen lu ma bëgg a wax mooy da daan bërët léegi balaa yokk ko ki bay jóg kenn xamul kañ la moo tax léegi day romb di xool ku ko xool waaye kenn du ko xool addunaay def loolu moo tax nabi ni sallallahu alayhi wa sallam góorgóorlu leen ci àdduna ba ixtanim xamsan xam xamsin nabi góor góor góorgóorlu leen ci juróom bala ko fee juróom a fekk yaa rasulallahi moo yooyu juróom yan la mu ni bi jiitu mooy shababaka qabla haramika waay waay waay waay bi ngeen doonee ndaw góor góorgóorlu leen balaa màgget màggete ñëw màgget day ñëw de xanaa xamoo ni màgget doo ko sentir doo ko yëg da ngay jekkee rek mu ni bërët sa kaw da nga naan ah ñun xale yi fi mu ne man saa yi ma di ñun xale yi te yàlla dogal na am naa doom ju sëy de waaye bu ñu waxee rek ma ne ñun xale yi ñun xale yi ñun xale yi da dem tuuti rek doom jooja am doom nga am sët sët ba naan la maam nga naan ñun xale yi ñun xale yi waaye da ngay xëy bis rek say bët dootul leer njaay da ngay xëy rek say bët dootul leer nga naan ñun xale yi dem seeti docteur mu bindal lay mi yopp nga naan ñun xale yi ñun xale yi nga xëy bis rek jóg rek am lu bañ nga naan ndiggali fekk déedéet du ndiggali de mage moo ñëw شبابك قبل هرمه هيات هيات يرتئب الزجاج إذا فآ ويعود شيخ في شباب الفراد ku topp sag ndaw ba màgget dugg la mën a too dellu ndaw déggu leen ma de mani mani verre bu toj defaraat rek waaye ndaw lu xës mage dugg la mën a too dellu doon ndaw dee rek dee rek mani ku dee mag dee ku deewul mag dee waa ji dafa dugg ci jàkka ji yore jaasi daan ni maa ngi ci jàkka ji de gaa yaa ngi wan penku ñu ngi ko wan gannaaw mu ni maa ngi seen gannaaw yore jaasi de ki mag ci jàkka ji laay rey gaa yi di rocceeku julli gi àggagul de xam naa bu doon stade la xale yi di way bu ñu dugalee ba mat si biy waaj a jeex ñañu ma ne di génn da ngay dégg xale yi naan ñu ngi rocceeku <laughs> gaa yi tàmbali rocceeku mu naan ee eh, ee eh, eh, ki mag ki mag ci jàkka ji bu mu génn de dama koy rey gaa yi di rocceeku ba yàgg mu des imaam rek ca jàkka ja julli gi jeexagul gaa yaa ngi génn imaam a des ci jàkka ji ak doomam ji ci gannaawam imaam ni assalaamu aleykum sëlmal na julli gi bi mu sëlmalee julli gi tourné ci doom ji xool doom ji doom ji xool ko borom jaasi ji ni yéen ñaar a ci des imaam ni ko waaw mu ni ko yéen ñaar ku mag doom ji ni ko mooy sam papa waaye imaam bi xool xamul lu muy wax mu ni ko wax na dëgg de may papaam mais nag nii laa ko xame de daf moom daal man nii daal laa ko xame xaw ma sax na kañ la judd wax dëgg yàlla lan laa bëgg a jàngale shababaka qabla haramika mooy mooy mooy bi ngay ndaw góor góorgóorlu ci balaa magee ñëw ndax bu magee ñëwee lu la rëcc ci sa ndaw dootoo ko dab doon ndaw rek topp sa ndaataandal lax sa ngi ñëw dafa am benn xale lu góor day daw ba mu yàgg ànd ak baayam bi muy daw ba mu yàgg di daw ba mu yàgg romb waxambaane bi waxambaane romb leen di daw di daw ñàkk tooy xepp xale bi ni ko bàyyi kii kan la mu ni ko kii mooy waxambaane mu ni ko bàyyi xanaa lu yàlla bind kii yee cépp doole mu ni ko bu dajee xale bu jigéen bu mu nopp rek dooleem jeex xale bu góor bay daw ba romb xale bu jigéen bu mu nopp taxaw di wax lu ñor ak lu ñorul fàtte na ni daane ci sport waa ci loo ne nu mu demee nangam nangam baay ba ni ko xoolal baay ba romb ko xale ba ni ko xoolal ki ma la doon wax fàtte na ni day sport mu ni ko bàyyi xanaa xale bu jigéen bu ñu nopp moo fi doole mu ni ko bu amee doom ji weex fàtte ni daf nañ ko xale bu jigéen lu mu jonge jonge jonge lu mu rafet rafet rafet lu mu silwiise silwiise bu ko yàlla mayee doom te doom ji weex lépp réer ko surtout xale léegi xale yu jëkk ya xoolal xale yu jëkk ya bu ñu tewaan a nelaw booy jox lem ñuy nelaw xale léegi da ngay boole lem ak bër jox leen ñu jël nga arrêté ñu tàmbali jooy nga jox leen ñu jël boo arrêté ñu tàmbali jooy xale léegi lem nelaw loowu ko bër nelaw leewu ko mu ne ko xanaa xale bu wexe fi ëpp doole mu ne ko bu nelawee rek lépp jeex mu ne ko bàyyi xanaa nelaw fi ëpp doole mu ni ko nelaw li muy bari doole bari doole boo demee bay nelaw ñu indil la soxla boo mënu la faj dem ba tëdd dese la nga gëmmeentu sàngu ñu fëgg la kiy fëgg kan la ñu ni chef de village moo chef de village du muy wut mu jox la convocation gendarmerie suba 9h na nga wuyu ji gendarmerie guddi googu dootoo nelaw ndax xam nga ki nga yoreel du la baal yàlla boo ko ñàkkati macha allah ñu ngi ziar bu baax a baax docteur docteur yàlla yàlla na yàlla fay leen doo nelaw mu ni bàyyi xanaa soxla boo mënul faj ëpp doole mu ni ko mbokk yu ànd bu ñu ko songee daan ko bu ma demee bay tëdd convocation biñ ma jox cinq millions laa war a fay wala suba ma dem kaso ma téléphoné Badara Badara téléphoné Habib Habib téléphoné Mansour Mansour téléphoné keneen ñooña di téléphoné te ba famille bi yëpp daj bu ñu xëyee suba balaa 9h famille bi mën nañoo dajale juróomi million te duma ko yëg fay ko mu ni ko bàyyi xanaa mbokk yu ànd ñoo fi doole mu ni ko li ñuy bari doole bari doole deewa leen ëpp doole bu dee duggee ku ko neex lay rey te duñ ca man dara nabi bu ñaareel bi mooy góorgóorlu leen ci xinaaka xabla faqrika bi ngay am góorgóorlul balaa ngaa ñàkk fi la yàlla lay jox wërsëg loo ci deful boo ñàkkee dootoo ko man senegal laay waxe de fi may waxe wóor na de ma ni Sénégal ñoo fiy dund ñun ñëpp xool leen ñi yoroon démb te tey yoruñu léeg leen nga dugg ci jotaay gis nit mu toog ci siis nit ñëw ñu ni ko aal ñu siis bi dem ci gannaaw te yow boo xamee nit ki ni bërki démb bu toogaan ca gannaaw ñu indi ko ci kanam léegi bu toogee ci kanam ñu yóbbu ko ci gannaaw nga xam lu ko waral mooy dafa yoroon te yoratul nabi ne góorgóorlu leen li ngeen yor ngeen def ci te yàlla tax balaa ñàkk ñëw Mouhamadul Habib damay nettali ma ni leen loo bari le bari le boo ko fi jalee ba mu jalu bis dina jot ñu séddale ko yow ñu suul la te léeg-léeg sa jabar jiy doon kat bu doon nee ba pare benn waay bu mel ni tafsir gaya koy takk bu ko takkee di noose alal ji nga ko bàyyeel lal bi nga xam ni yaa ko jëndoon ca lay tëdd ak moom néeg bi yaa ko tabaxoon ca lay ne di taal sa climatiseur ñu koy fayalee courant sa xaalis xam nga nu muy def bu ayee ñetti fan ñeent bis day jot mu toog ci saal bi jàpp bopp bi moom Tafsir Gaye sa jabar di ko xool ba mu yàgg ni ko ji tey de bien woo mu ni ko noo tey kay ça va pas mu ni ko lu xew mu ni ko ah sa waa ji photom bi su ma ko xoolee sama àdduna day tukki du ma bëgg dara ci àdduna xam nga soxna si nu muy def day wékki sa photo bi dugal ko ci rondal ji ngir bañ ko yàqu guddeem waaw kon loo ci deful te yàlla tax ñàkkoo ko alal ji loo ci lekkul defoo ko ci yàlla ñàkkoo bu ñetteel bi nabi nii nabi nii firaaxa faraxaka xabla suxulika mani bi ngay am jot góorgóorlul balaa ñàkk jote ñëw boo ma dem jàkka ja demal boo ma dem gàmmu ga demal boo ma dem màggal ga demal boo ma dem ziyaar ba demal boo ma nee dem appel ba demal foo mën a dem fooy jële tiyaa ba demal ndax bés dina jot ngay bëgg a dem te dootoo mën a dem loo ciy man du ngeen ma boo bëggee dem te mënoo dem loo ciy man du olof njaayey wax ni bëgg a dem taxu la mën a dem luy taxa mën a mën a dem mooy taxa dem du loolu la olof njaay di wax moo tax na bi ni faraxaka bi ngay am jot góor góorgóorlul loo mën ci dox lu baax nga dox ko avant ngay ñàkk jot ndax diggante am jot ak ñàkk jot dafa jege jigéen ñi jàmbaar lañ xaar leen tuuti ñoo jigéen ñi kenn du ñoom góor ñi saa yoo gisee ñu toog toogaay bu jekk xamal ni ku dee lañu lay waaja suuli gurubu góor yi kese guru jigéeni kese ay ndeysaan ñu ngi lu kat ndeysaan ay waaye yàlla na leen yàlla fay waaye ndeysaan góor gi yërëm na góor ñi ñëw joxe ndeysaan <laughs> maa ngi dem de moo tax lekk léeg kenn ni ma yow jigéen ñi rek nga mën a gàmmul ma ne ko man damaa gàmmulul góor ñi sax kay ñooy def foo ma ne ñu ñëw fa rek waaye man taxuñu maa jóg de ah yéen moom ci ñi ma tax a jóg ngeen bokk yàlla bu leen ko ñàkkati sama gaay yi yéen ci waaw kañ maa ngi ci faraaxaka xabla sugulika bu ñeenteel bi nabi ne sallallahu alayhi wa sallam sixataka xabla sa xamika ah waay waaye waaye waay waay yàlla bu leen ko ñàkkati waay góor yi muy jàmbaar lañ de Badara bi ngay wér góorgóorlul balaa wéra dee ñëw eh eh wér gi yaram bu la taxee kaasu kafe nga ciy def fukki bekki suukar ak ñett bis ngay xëy rek ñu la da ngaa kon bi ngay wér ci ngay sakkanal sa bopp balaa wéra dee ñëw waaye man wér naa rek lu ma neex def déedéet wér naa rek fu ma neex dem déedéet moo tax léeg-léeg nit ni ma tafsir sakkanalal sa bopp ma ni ko lu ma ci man léeg-léeg nga noppalu léeg-léeg nga lekk léeg nga jàng léeg-léeg nga tëdd léeg-léeg nga fay téléphone bi yooyu yépp yaramu doomu adama da koy soxla waaye daw rek yàlla ne nabi ne juróomeel bi ma dugg ci rasulillahi mooy xayaataka qabla mawtika foofu laa tijjee woon gàmmu gi yaay booy seen sang ba rasulillahi wala suñu sang ba baayu Fatima ne waay waay góorgóorlu leen ci bi ngeen di dund balaa deewa ñëw dee day bette de man de tàgge nañ ma koo xam ni ci laa xam ni dee dara du moom waa ji ma woo tàgge ma ni ma sama frère moo dee frère bi sama soppe la xam naa ko mu ngi deewe Rosso Mauritanie ma déparé Thiès jëm Rosso waa ji ma tàgge déparé Nouakchott jëm si Rosso bi ma agsee Rosso ñu ni ma ñaari néew ñoo fi ne ni kan ñu ni ma diw ak diw ma waaw diw moomu moo ma tàggee ba ma ñëw di ñu ni ma bi muy ñëw la accidenté ba dee ci yoon bi ñu ngi koy waajal ci biir lu ci nit man kenn da cee man dara te yàlla ne eh ak am kayfa takfuruuna billahi wa kuntum amwaatan fa ahyaakum summa yumiitukum summa yuhyiikum summa ilayhi turjacuun huwa alladi xalaqa lakum maa fi lardi jamiican summa stawaa ila samaa'i fa sawwaahunna sabca samaawatin wa huwa bi kulli shay'in aliim sadaqa allahu alazim suñu borom ne eh moom laa tijjee gàmmu gi bàyyil xel bis bi nga xamee ni dina jot nga tëdd feebaru dee dugg la إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحبل قد قضى ما للطبيب الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى دكتور دكتور lu docteur ay ay ay ay ay xam nga luy xéewalam mooy ñu koy indil malaat bu feebarul feebaru dee waaye feebaru dee docteur bu ñu koy indil léegi ñu ni xamoo dara fekk xam nga dara da nga amul chance di dajeeg ñu war a dee rek nga tëdd aj say bët sa dara deewagoo de waaye bët yi moom amatoo dooley wàcce xef yi bu weñ naawee tegu ci sa xef yi mënoo koo dàq ndax amoo doole yëkkati sa loxo ñi toog ci sa wet ñoo lay dàqal weñ yi bu ñu la solee amoo dooley wann ko day génnaat perfusion lañ lay dóor nga jekki rek malakul mawti dugg ci biir néeg bi nga koy gis te ñi la wër bu ko gis kera la yàlla naan kalla ida balagati taraqiya wa qiila man raaq wa danna annahu alfiraaqu والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى بطل فوفو ني ñooy wër ku la mën a faj waaye yow xam nga ni doo too wér sa benn tànku surux na bàmmeel benn baa ngi ci biti day fekk bi ci biir waaye bi ci biir dootul génn yàlla dogal na sa dara yëngootul ñu sang laxas la yeew say ŋaam boole say loxo yeew boole say tànk yeew ba mu dëgër mattale sa ñaari bañ ba ñu mattaloo ñu yeew ba mu dëgër dox tànk yu dëgër gas ba mu xoot yoor la ci biir bàmmeel suñu la yooree ci bàmmeel nag foofu ñu la dugal dox juróom-ñaari paa génn Munkar ak ki dugg ca bàmmeel ba bu ñu agsee lenn rek moo la fa mën a jëriñ mooy sayyidul awwalina wal axirina sayyidina Muhammad mahabbatu rasul rek moo la mën a sobe foofu. zakal malaadu alladi arju najaate bi. maa ngi tàmbali gàmmu gi. maa ngi ñaan kenn ku nekk nga dendal jox ko loxo nee ko baal ma ak baal naa la yal nañ yàlla boole baal zakal malaadu alladi arju najaat bi ñaar ñu dendu ñu ne góor ak jigéen ku mu doon ku ne joxal loxo ki nga dendal nee ko baal ma ak baal naa la yal nañ yàlla boole baal zakal malaadu alladi arju najaat bi bàyyi basak baara maami denox cheikh mbakki yu doomi maam jaara jaak mam mor anta sali ngi joobe sayyidina muhammad rasulillahi saakal malaadu alladi arju najaat bi ku ne ci tànt bi xaadimu rasul baayu sëriñ saaliwu baayu sëriñ fàllu mbàkke ngi joobe sayyidina muhammadu saakal malaadu alladi arju najaat bi baayu cheikh abdoulahat mbàkke baayu cheikh abdou xaadar mbàkke baayu sëriñ suaybu baayu sëriñ murtadaani saakal malaadu alladi arju najaat bi yi maami sëñ Mbàkke soxna loo maami sëñ Cheikh Mbàkke gaynde Fatma nee na zaakal malaadu zaakal malaadu alladi arju najaat bi tilka rusulu faddalna baadahum ala baadin minhum man kallama allahu wa rafaa baadahum darajat yokkal ma rajo bi wa aatayna isa bna maryama albayinati wa ayyadnaahu bi ruuxi alqudusi walaw shaa allahu ma iqtatala alladina min baadihim min baadi ma jaatuhum albayinat ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به يا كريم شيخ إبراهيم فالباب المريدين والمريدات ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به يا كريم شيخ إذا جن برم جنك لكن ما مسن عبد كريم بك برم مكارم الأخلاق ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به سن بامبا بروم كتب الله تعالى نينا سيدنا محمد ذاك الملاذ الذي أرجو النجاة به borom kataballahu taala anna baytallahi alharami tarfahu almalaikatu ila tuuba baayu sëriñ saalihu mbàkke borom gotok mbuur maami sëriñ cheikh saalihu maami sëriñ mustafa saalihu ngi joobe sangam ba sayyidina muhammad rasulillahi wakal maladu alladi arju najaati bi yàlla yàlla ci barke xaadimu rasulillahi wakal maladu alladi arju najaati bi sëñ bamba nee na kenn laa yaakaar mooy sayyiduna muhammad محمد دنيا واخرى فليتي حوله جارو سن بامبا نينا ادنا الاخره كن لا ياكار موي رسول الله وهو الذي يخجزني عن زيارتي سن بامبا نينا سما يرم غالنكور ما تري زياره بايو فاطمه kal xal bi zawaaru sëñ Bamba nee na sama xol ak sama làmmiñ du jóg ci ziyaare rasulillahi antal jamilu laka amilu sëñ Bamba ngi joobe sayyiduna Muhammadu antal jamilu antal jamilu sëñ Bamba nee na sayyiduna Muhammad yaay ku rafet ki yaay ku wóor ki yow rasulillahi anta rasulu yaay ki yàlla yónni yow sayyiduna Muhammadu bila jirai yow la yàlla yónni yow baayu Fatima anta sabilu yaay yoon wi yow rasulillahi bikal wusulu ku bëgg àgg ci yow lay jaar koo xam ni mu ngay wut lu muy wut waayi xayra saraayi kuy wut ngeen jikkoom na jaar ci yow rasulillahi azabta uri يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كسب يا رسول الله كنا جتانت بتبقى رسول الله دنجا يكتز مقال رسول الله أبو الفقير أبدا بايو شيخ طالب ويو doomi muhammad faadal jak maamin sharifullahi qutbullahi gawsullahi waliyullahi cheikh na seex saadu lañu koy woowe borom saalihiina borom gëléem ga ca nimzaata ngi joobe maamam rasulillahi abul faqiri abada innama sadaqatu lil fuqarai wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سعد أبيه دومي محمد فادي لك مامن طالب الخيار شتش عبد القادر جيلاني برم وأعلم نبات الأرض كم هو نابت شيخ جيلني وأعلم رمل الأرض كم هو رملة شيخ جيلني وقفت بباب الله من عبد القادر جيلاني وحدي موحدا فنوديت يا جيلاني فنوديت يا جيلاني يا جيلاني يا جيلاني ادخل لحضرتي ابو الفقير ابدا شيخنا شيخ سعد بني كو امول سما ماماي سباي ما ابخت احدا شيخنا شيخ سعد بني سما مام رسول الله مسول ايبل كن ولا اساء الابدا شيخنا شيخ سعد بني سما مام رسول الله مسول نياول كن حاشا ذلك الابد شيخنا شيخ سعد بني لولو جوم سما مام دي ko def de huwal abar ibnul abar huwa al abar ibnul abar yàlla boo ko ñàkkati ci barke rasulillahi huwa al abar ay waxaat ko huwa al abar huwa al abar inna al abrara la fi naimin ala laraiki yanzuruna taarifu fi wujuhihim nadrata annaimi yusqawna min rahiqin maxtum xitaamuhu misk wa fi dalika falyatanafasi almutanafisuun wa midaajuhu min tasnim aynan yashrabu biha almuqarrabun huwa al abar ibnul abar moom moom sayyidina Muhammadu wal abar Muhammad la tudd ku baax la ibnul abar baayam Abdullahi ku baax la ibnul abar baayu baayam Abdul Muttalib ku baax la ibnul abar maamam Hashim ku baax la barrul soo ko toppee ba bagay dem Abdou Manaf ba bagay dem Adnaan ñëpp ñu baax lañu musalsalan mimman sajad boo ko toppee ba bagay dem ca maam Adama nabi ñëppam ñu baax lañu tuuba li alil aramayni tuuba الحرمين xanaa ko sopp yonent yàlla Muhammad newul ci tant bi ngeen ni sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ku ne ci tant bi te bëgg rasulillahi daga naan sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam julli leen ci baayu Fatima sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam masaw jullil ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم شيخنا شيخ سعد بني توبا توبا لأهل الحرمين واي تخي تخي نيل نوا مكة المكرمة mukarrama ndax Makka la yonent Yàlla Muhammad juddoo Touba. Touba li ahlil haramayni. waay waay texe texe ñeel na waa Medinatul Munawwara ndax Medinatul Munawwara la ñu denc sayyidina Muhammadu. Touba li ahlil haramayni. xalaqa Allahu taala Muhammadan fa ja'ala ra'sahu min albarakati wa aynahu min alhayaai wa uznahu min alibarati wa lisaanahu min alzikri wa shafatayhi min altasbihi wa riquhu min asali aljanna الجنة وشعروا من نبات الجنة توبى لأهل الحرمين لأهل الحرمين مكة غيرنت بجدو كرب النبي دي جدو مكة المكرمة بابا يلا نكو بندي تباركي توبى لأهل الحرمين يا ربتي سيدنا محمد يلا نكو بندي من الحياة كرسا توبى li ahlil xaramayni ñaani noppi sayyidina Muhammadu yàlla ko bind min al ibarati ci dégluwaar tuuba li ahlil xaramayni lisaanoo moom sayyiduna Muhammad yàlla nga ko bind min az-zikri ci tudd yàlla. Tuubaa li ahlil haramayni. ñaari tuñu baayu Fatima yàlla nga ko bind min at-tasbiix ci subhaanallah. Tuubaa li ahlil haramayni. wariqoo tëflitu baayu Fatima yàlla nga ko bind min asalil janna mu bokk ci lemu aljana. Tuubaa li ahlil haramayni. masalul jannati allati wa'ida al-muttaquuna fiihaa anhaar أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ما من شريف جي أيدر نينا توبى لأهل الحرمين توبى لأهل الحرمين خنا خموني لا تموجد نيون كدان ووي أحمد موم رسول الله توبى لأهل الحرمين كرب مجدو بمو أمي جرم بني وير كبيرو يا يم تجدو قل لنيو قطو دي محمد توبى لأهل الحرمين lii kera ba mu ganee jamono maam ji Abdul Muttalib tudde ko Muhammadu tuuba li uglil aramayni bi muy am vingt-cinq diini alquraan nga naan innahu la qawlu rasuulin kariimin zi quwwatin inda zil arshi makiinin mutaa'in samma amiinin wa maa saahibukum bi majnuun tuubaa li ahlil haramayni jara ba muy am quarante ans lañu ko woowe muhammadu rasuulullah li ëglil aramayni maa ngi bëgg a delloo ci gàmmu gi cheikh na seex saat bu ne makka ak medinatul munawwara am nañu texe xussa bi rawdatil amini ñoom la yàlla jagleel rawdu sayyiduna muhammadu wa rasulu lil wara maa nga ca borom bi jaaw bu rafet ba cheikh alhaaji abdul aziz dabbaax mbokkum jolof jolof yi cheikh alhaaji abdul aziz dabbaax mbokkum muy cheikh alhaaji abdul aziz dabbaax mbokkum afe jolof cheikh alhaaji abdul Abdul Aziz Dabban doomu maam Sofeetu ñang ja sëtu ngañ xari ñang ja sëtu maam Maaram Mbàkke baayu Sëriñ Mawdo si baayu Sëriñ Mbay si Abdul Aziz Njool Fuuta ngi joobe sayyiduna Muhammadu Rasulillah sopp da bax Malik Sëriñ Abdu sawtur dafay mel ni lem sa jëmmit du sàppi danga saf xorom sutub démb bun la del xëcc sunna lu dul sunna bon na lu bon bul ca jëm maali tabibun xayra taali joo dama bëgg li nga waxoon nga waxaat ko ma dégg ko bu dee ñemee nga ko xani Serigne Abdou Serigne Abdou sawtur dafay mel ni lem waaw waxul dëgg yéen sa jëmmit du sutub dimba bunna aha del xeñtu sunna aha lu dul sunna banna aha lu ban bul ca jëm aha maali tabibun gayra taa alija fa baxin baxin ya sayyidi wa malaadana man kaana xaatima asrihi wal baari ajaban bi bid'ati malikin wa imamina ni'mal fata ni'mal fata cheikh alhaji abdul aziz dabbaax ni'mal fata man aada kull faxaari nga ni maali tabibun maali tabibun gayra taalijoo Cheikh Alaaji Abdul Aziz Dabakh bi jaaw bu rafet bi Serigne Habib nee na neexama baax na alfata Alaaji Abdul Aziz Dabakh man maam Abdou mooy ki nga xam ni xaasa làq na kulla fa lépp lu nit di tiitaroo yàlla defal na ko Alaaji Abdul Aziz Dabakh te taxul mu tiitaru ali tabibun gayra taha alijo mani ñu naan maam Abdou teñ man Abdul Aziz Dabakh maa li tabibun ghayra taalijo Habib sa góor gi ñu ni ko tee ñoo jële ay professeur mu ni professeur manuma faj man Abdul Aziz maa li tabibun ghayra taalijo moo góor gi tee ñu la wutal ay spécialiste mu ni spécialiste manuma faj man Abdul maa li tabibun ghayra taalijo moo Abdou tee ñoo wuti ay sëriñ yu la ñaanal cangat la jox la nga naan mu ni ñooñu mënuñu maa faj man Abdul Aziz Dabakh ali tabibun ghayra taalijo mu Abdul Aziz feebar bi la dal lan la ba kenn mënu laa faj mu ni feebar bi ma dal mooy haja shawqi li hubbi xayril baraaya mazharil lutfi akramil kuramaay ma li tabibun ma li tabibun ghayra taalijo sa góor ga ne ma li tabibun aw ma benn docteur aw ma professeur aw ma spécialiste xaalis boo xam ni mën na maa faj xayra taaha ku dul taaha sayyidina muhammad mooy taaha ñu ni ko maam abdou sayyidina muhammad newu fi nan la lay faje alaaji abdul aziz dabaax nu mu lay faje mu ni lan hada al marida bi fikrigi wa bi mat ko mën a mooy ngeen may tuddal turu sayyiduna muhammadu fa bi madxi xayru shifaa'i wa rahmatun ndekete góor gi li ko faj li perfusion du ko faj comprimé du ko faj siro du ko faj pikiir du ko faj ñu ne ko abdu li lay faj lu mu doon mu ni sayyidina muhammad sayyidina muhammad nu mu lay fajate newu fi mu ni da ngeen di taxaw ci sama bunt naan sayyidina muhammad sayyidina muhammad bu ngeen di tudd sayyidina muhammad baa ngeen tagg rasulillahi moo may faj man abdul aziz da bi madxi xayru shifaa'i wa rahmatu xanaa xamoo ni tagg yonent yàlla muhammad moo dàq faj mbooleem nitu yàlla yu bu ñu feebare wa hayaatu ruuqul aashiqiina bi dikrihi nitu yàlla yi xanaa xamoo ni seen vitamine C mooy nga leen di tuddal rasulillah wa bi lawum taxya alqulubu la habada Maodo ci yéen laa jëm si ndekete ku baax ki mooy sayyiduna Muhammadu wa kadaka yastasqa alxamaamu bi waji ndekete baayu Fatima xiin waa ngi taw ngir jëmmam rasulillahi sayyidil mursalina dama bëgg dem ci xilaatu dahab bi seetal ma borom bone kaare ba xaddamahu jamiul anbiyaay ku ne ci tant bi te bëgg Serigne Babacar Sy xalifatuma bayna samaa'i wal ardi xalifatuma ul bihaari wa maawul abaari doomi maam Seydil Aji Malick Diak maam Roqaye Ndiaye dama ne ku ne ci bi te yëg ni bëgg nga Sayyiduna Muhammad muhammad muy góor muy jigéen jógal taxaw ma xam ni bëgg nga sayyidina muhammad rasulillah wa xiiratullahi ay ay ay ay wa xiiratullahi wa xiiratullahi ku nekk ci tànt bi boo jógee taxaw yal na yàlla faj sa aajo saafara sa jàngoo ci barke rasulillahi wa xiiratullahi Serigne Babacar Sy doomi maam Roqaye Njaay jaag maam Alaaji Maalik ay joobe sayyidina muhammad rasulillah sunnatullahi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun wa khiratullahi Suleymaan Sëriñ Babacar Si mooy borom alhamdulillahi hadha ash-shaykhu rabbahu khayrul wujudi alladhi a'lahu mawlahu asxaabo cheikh alxalif a ngay way cheikh sëriñam rabba bila xalwatin asxaabo alanan hatta staqaamu fa yaalallahi man aaw borom rid rid wirdawul asba laa tastar bida abadan lu ko waral mu ni innal manahila tahmi min mazayaaw mazayaaw بل دارت زوياه عمد ما زياه والدار زوياه عمد ما زياه لخو تاكو دارت زوياه عمد ما زياه بلاي بل دار زوياه لخو تاكو عمد ما زياه بل دار تساوياه أمد ما زياه والدار زاوياه أمد ما زياه لخجك والدار زاوياه أمد ما زياه والدار زاوياه Malick si maami Serigne Habib see ngi joobe sayyidina Muhammad rasulillahi sirru sarirati ana soppey ca ruq ba a ngi joobe sayyidina Muhammadu sirru sarirati góor ga ca jooy te noppeeguñu Serigne Cheikh Tidiane si Serigne Abdoul Aziz Al a ngi joobe sayyidina Muhammad rasulillahi sirru sarirati baayu Serigne Mansour borom daara yeg daaru maami Serigne Habib Mansour maami Serigne Pape Malick Mansour maami Serigne Mansour si Jamil baayu Serigne Moustapha si Jamil a ngi joobe Sayyidina Muhammadu sirru sarirati Cheikh al Khalifa borom aw foo bil haadi inna al aada kaana mas'uula nga xam ni qaa'iduhum mooy wommat min deefi kooku laay joobe man Serigne Babacar xayru xiyaari xurayshin Cheikh al Khalifa ne ki may joobe xayru xiyaari xurayshin bi yàlla tànnee ñamu tànn ca biir xuraysh kookoy tànnee premier wëdd maawu sëriñ Babacar si ne ki may joobe wow wëdd maawu kookoy baax mooy géej ga moom rasuulillaahi wa xiiratullaahi bi yàllay tànn xiiratullaahi yàlla doomu aadama la tànn ci mbooleem lu mu bind wa xiiratullaahi aadama yi yàlla tànn jullit yi jullit a gën ku dul jullit yàlla tànn jullit ci biir doomu aadama wa waaye biir jullit jullit yi yàlla tànn waliyu yi ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun alladina amanu wa kaanu yattaquun wa xiiratullahi waaye yàlla ba muy tànn tànn na anbiyaawu yi ñu yàlla solo ñoom la yàlla tànn ba mu tànnee ñamu solo moom yàlla tànn ña nga xam ni ñoom la yónni ñuy 313 wa xiiratullahi suñu borom tànn na juróom شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى سرين بابا كرسينينا كي يالا تانا لا لي وخ جروم يوي شلا بوك waxi siiratullaahi waaye juróom yi daa génne kaat génne kay premièru première ya cheikh al xalifa kokka la mu ni maamu cheikhuna tijaani sayiduna muhammadu wa xiiratullaahi ko yàlla tànne moom laa a nettali rasulillahi weer wii ne di weeru rajab muy ndey ji koor rajo dindil ma écho bi te yokkal ma ko ani weer wii ne di weeru rajab weeru rajab mooy ndey ji weeru rajab wii ci la ñu ëmboon yonent yàlla muhammad e eh, dooma laaj bu ñu la laajee ban la waxal guddik ajuma weeru rajab bésu alxames ci ngoon seen maam sidi aji malik bul way al aji malik ne laylal arubati guddik ajjuma ci la ñu ëmb sayyidina muhammad maam alaaji malik ne ba ñu ko ëmbee guddik ajjuma ñii ni déedéet ajjuma guddik ajjuma ci la yaay amina ànd ak abdullahi ajjuma samedi dimanche altine alaaji malik ne fi shi'bi yawma sana al muxtaara qad amilat maam mawdo ne eh, li gën siiw mooy altine la ñu ëmb rasulillahi weeru rajab muy ndey ji premier première weer ñu ëmb nabi xam nga looy dégg yaa ngi dégg lu naan yeewu leen kuy nelaw na nga yeewoo yeewu leen mooy summal munaadi yunaadi musmi alfahimi defe naa yeewu nañ bi ñu ne kuy nelaw na nga yeewoo yeewu leen yeewu leen yeewu leen am ñu des mu ni tanabbahoo yeewu leen yeewu leen ñu ni lu xew ñu ni dañoo ëmb ngën ji mbindéef guddi kera ci weer wi waaw après lépp ci weer wi la xew de guddik àjjuma ñii ni guddik altine eh lu xew yeewu dañu ñu ni sottikoo leen parfum ñu ni déedéet boole leen parfum waaye suur leen néeg yëg couloir yi lal leen seen darab yi gën a rafet ngir teral sayyiduna muhammad ndax weer wii ci lañu ko ëmb mama laaji maalik a ngay dem ma lay nettali premier weer ñaareelu weer na bi ñàkk na baayam xadaa bi abwa abdullahi xiina mada charaani lxamli hada asharu lkalimi ñetti weer ñeenti weer juróomi weer juróom benni weer kera ba mu amee juróom benni weer min baadi ma qad xalaa waawun yuqaalu laha ha anti humilti badaran sayid al umami kera lañ ni yaay amina dangaa ëmb sayidina muhammad juróom ñaari weer juróom ñetti weer juróom ñeenti weer moo tombeeg weeru gàmm kera la yaay amina imbi sayidina muhammad nabee ngay judd alaaji maalika ngay nettali maam mawdoo nga diggante maam mawdoo nga diggante tiwaawan jak saaw aynu maadi nabee ngay judd makkatal mukarrama doom yàlla boo ko ñàkkati ci barke rasulillahi maam alaaji maalika ngi nettali doomi faawaat wele jeg maam ousmane a ngi nettali diggante tiwaawan jak saaw aynu maadi nee na naa zume naa ba teg yaay amina zum bi teg naa koko ko maam mawdo ne bisu altine ci la yonent yàlla muhammad gane jamono fu mu juddoo maam Maodo nii makkatal mukarrama la juddoo fan la ci makka alaaji malik ni wa halla usfaana aw daarab ni yusufa aw fi shaabi sayyiduna alhaadi aw irradami quartier bu ñuy wax usfaan ñi ni déedéet daarab ni yusufa ñi ni déedéet si abu abi talib la yonent yàlla muhammad juddoo maam Maodo demal Maodo ni na bee ngay raam bàyyi sëriñ Babacar di nettali na bee ngi jàng taxaw bayolaaji Mansour a ngi nettali nabee ngi jàng dox bayolaaji Abdul Aziz a ngi nettali nabee ngi daw bayolaaji Habib ba ngi nettali nabee ngi sànni bayu Serigne Sidi Ahmed see ngay nettali alaaji Malick ne ñi avant ñaari weer sang bi doon na mbër waaye dafa ànd ak yar mooy lan mbër gi mooy lan moo ëpp doole makkatal mukarrama waaye ku nga tooñ mu baal la te du tooñ moom rasulillahi alaaji malik ni yàllax way waa ni lillahi darru adibin sabba fil yutumi boo xam ne njirim la am doole ji mu am am yar bi mu am alaaji malik nee na yéem na ma maam alaaji malik demal maam Maodo ni ma wax la leen ma ni Maodo waxal Maodo ni wa waajibun taatul adi Maodo mahabbatu waajibun هادي نحن تما العهد لا تنا مولانا لواء فجر دلسجل لجنة تكو سانتي مسكي بفجر دلسجل لجنة بفجر أي أمي جولال نردو دوم دوتو ملن موم بمك مك مك سيد الأولين وسيد الأولين أين تلون أمجا خاي أي وخمدو دي وخل على جمال جان Babacar jugal taxaw la lay jodeyri ku bëgg Serigne Babacar jugal taxaw la lay jodeyri ku sopp Serigne Babacar jugal taxaw la lay jodeyri ku sopp Serigne Babacar jugal taxaw la lay jodeyri ku dugg taxaw yamal xiyam doo fa taxaw la lay jodeyri ku dugg taxaw yamal xiyam doo fa taxaw doo fa taxaw ay Maodo Malick jàng bare na lay lay jodeyri ay Maodo Malick jàng bare na lay lay ay Maodo Malick jàngu bëree na lay lay jërëjëf. parasol bi du la gën a tàngaay ci du la. baayu Babacar. bagi Abdou waalo waalo bee. Seydi Hadji Malick jàngu bëree na lay lay jërëjëf. ay Maodo Malick jàngu bëree na lay lay jërëjëf. ba ci sikkar la woolu doon lu na mer Cheikh Tidiane. ma Maodo fii la rawee gaañu ba tey kenn dabu maam Maodo dawal gaalu texaga ku ci dugg lu ñu dem ay maam Maodo dawal gaalu texaga ku ci dugg lu ñu dem ay maam Maodo dawal gaalu texaga ku ci dugg lu ñu dem ay maam Maodo dawal gaalu texaga ku ci dugg lu ñu dem ay maam Maodo dawal gaalu texaga ku ci dugg lu ñu dem basu yangolo ci na ngir ragal uma xayra di soppe mbay mooy pendal mu bel tuway moo yor waañu Seydi Mbay